Sonko mooy Diomaye ne serait-ce qu'à travers euh, des réactions sur les plateformes digitales comme ni koy defee présenter leurs condoléances mais aussi au-delà de ces condoléances là teg lu leer ci loxoy nit ñi moo gën ba noppi nekk ci leneen les sujets politiques loolu ça ne fait que coutume pas des des familles éplorées te affaire bi day gën a façon fii mi nga am ay gaal yi àgg ak ay xale yi toog fële ñi àgg ba pare di surfi <laughs> tey te xale yi du yomb ko comprendre nga donc euh, te dafa laaj aussi politique euh, d'emploi bu efficace surtout ci ci village yi ci tefes yi ci parce que Sénégal politique d'emploi des jeunes vraiment loolu dafa dellu ginnaaw trop ko te li gën a doy waar mooy que nekk ci dëkk te gisoo ci sa bopp tu ba nekkee ci dëkk te gisoo ci sa bopp vraiment pour lu la téye ci dëkk bi yombul quoi je ne pas est-ce que ragal ni est-ce que bu defoon politique d'emploi bu baax xale yi am liggéey du tere gaal yi di continuer parce que le problème xam nga mooy lan Sénégal l'administration a toujours volé le peuple administration musul toppatoo askan wi askan politique d'emploi zéro dafa mel ni dëkk bi Sénégal administration bi ñoo ko moom administration yi ñoom ñoo am possibilité bu ñu mën a amee kër administration yi ñoo am possibilité bu ñu mën a amee assurance sant de santé administration bi ñoo mën a am assurance assurance. assurance. mais l' informel gi nga xamante ni c' est quatre vingt pour cent l' économie sénégalaise informelle informel administration bi lan la def pour pour ñëw. fii fii lu fi am mooy que ni tailleur bi day bu juree doom doom jooju da koy former mu doon tailleur pour moom bu demee retraite doom ji doon atelier bi tëgg bi noonu la uude bi noonu tu vois <laughs> domaine artisanat bi. Mm-hmm. noonu la ku ci nekk da ngay former sa doom pour bu subaa mu wuutu la mais yow amuloo système bu état bi teg boo xamante ni di nga mën a formaliser sa liggéey mm-hmm. mën ci jënd kër mën ci am assurance santé mën ci am retraite secteur informel bi amuñu loolu <laughs> léegi nag bon mm, tamit euh, mbay mi fayatul mm-hmm. àll bi moo tax Dakar surpeuplé mbay mi fayatul àll bi bay bi fayatul géej gi géej gi fayatul. est-ce que du tey moo waral. Mhm. Mhm. géej gi am yoon ndax ñi nga xam ne dañoo daan nappi di ci gis seen bopp. ñooy wëlbatiku mhm. léegi nekk chauffeuru gaal. waaye gis nga libi yi nga libi bu ñu ñuy def trafic bi bu ñu dajalee ba am lim bu normal. ba gaal ga war a dem chauffeur chauffeuru Sénégalais la ñu wut. <laughs> dafa dafa reetaan c'est tellement intéressant ba pare. waaw. mool yi ñoo gën a maîtriser ndox ci Afrique mool yi. man xam nga ñaata ñaata ñaata sénégalais ñoo jaar ci géej gi fekk ma itali hmm. bari na. am na sax ñu ma ci formé ba ba seen intégration. Hmm. mais bu ñu bu ñu bu kiiwee ba noppi bu ñu amee client ba pare safaru sénégalais la ñuy moom moom du fay. moom li ñu koy assuré mooy na na conduire gaal gi ba mu àgg. waaw bu conduire gaal bi ba espagnol yi teg ko bët wala italien yi ba ñuy ñëw. mu déguisé wu nekk passage <laughs> loolu parce que Afrique de l'Ouest sénégalais moo ci gën a maîtriser ndox parce que mooy seen métier. <laughs> moo di léegi nag bon yow doo nekk ci doo nekk ci tefes gi. nga xamante ni yow mooy sa source de revenu. ñu jaay géej gi hmm? mhm. ñu jaay géej gi te lébu moo nekk xeet boo xamante ne ñoo daax lekk xaalis Sénégal lébu lébu lébu lébu xam nga géej gi ressource la boo xamante ni nekkul comme bay ko lébu lébu xam nga bay sax da ngay sonn xaar un mois deux mois am na risque ak yooyu mais fii da ngay xëy dugg gaal jënn mu la neexee nga def une semaine wala quinze jours wala mm-hmm. vingt jours. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. ñëw jënd am sa benn cinq cent mille sa benn un million. wallaay comprendre nga. lekk ko takk say jabar kii kii mu jeex nga dugaat. tu vois mais ñooñu bu ñu demee ba ñoom gisatuñ jën. Mm. te xam nañ yoon wi. mais ñooñu duñ toog ci duñ duñ toog ci tefes gi. wallaay dëgg la. est-ce que xaw ma jox la benn exemple. Mm. Saint-Louis. Mm. Saint-Louis yëpp amuñu. amuñu frigo bu ñu mën a conserver seen i jën bu fekkee ni. Ah euh, euh, waay waay. bu géej gi doxee. bu mhm. jën yi ëppee. Mhm. amuñu conservation bu ñu frigo yu ñu mën a conserver excès de poisson bi ñuy am. Mhm. Saint-Louis yëpp. loolu c'est normal. amuñu ay kii frigorifique amuñu ko station frigorifique amuñu ko non pas station frigo parce que sta euh, waaw chambre amuñu ah, ay chambre froide yu ñu mën a conserver jën yi ba ëppee te ñu ne la foofu activité bi gën a mag mooy. mooy mooy mooy mooy mm-hmm. mooy pêche mais naka la la la la nguur gi mën a taxawee euh, ngir rek jàppale jeunes yi ci liggéey parce que wutum liggéey waxtu wi euh, moo leen ñor ba waral ñuy def na su dul noonu internet yi kenn rek mi ngi naan ma sëriñ boobu. Hmm. Euh, def na les premiers pas parce que def na benn usine bu am solo ca diwaanu Kaolack. luñ mën a jël 2000 euh, jeunes yoo xam ne waxtu yu mënees nañ ci jàpp ci liggéey muy lu am solo loo xam ne si à saluer tey ñu mel ni moom tey ci affaire textile bi ci ah. affaire textile mais ci mboolem secteur bu amoon ku ci mel ni sëriñ boobu yaakaaroon yi dina wàññeeku ak i taxawaayu le PM bien sûr pas le président mais le pré euh, le PM ndax nag ndaw ñu jox nañ ko bopp la est-ce que sëriñ boobu Sotiba Simple Afrique le reprendre foofu waaw hmm. technicien wu Setibaaba ak bagage yu demee noonu loolu la reprendre yóbbu ko fële kawul mm-hmm. est que yaa ngi dégg wax yi mm-hmm. bon je le félicite nag quoi mm-hmm. tu vois mais Sénégal dafa am benn patrimoine bu fi tubaab bi bàyyi woon Sénégal yi ba ñu jëlee indépendance ñu yàqu ko muy lan parce que région bu ci nekk amoon na industrie boo xamante lay sax ci région boobu industrie bi foofu la samp nekk benn source d'emploi pour ces jeunes loolu la ñu yàq. Mm. parce que boo jëlee ci Thiès chemin de fer mi ngi fa woon. Mm. yàq nañ ko. dañoo jël Diourbel euh, Sonacos. Hmm? ainsi de suite insi de suite boo jëlee Tamba di nga société de minières yi nekk foofu waa région bi duñ ci bénéficier wu. Mm-hmm. tu mm. Casamance xoolal rek pour des raisons de politique. Macky Sall ñaata ñaata temps la ko woon. bato bi mhm. tëj région boobu. considéré leen comme des comme des euh, comme des ou comme des <laughs> terroristes. Mhm. confiné sunu université bi ñaata temps lañ ko tëj. Mhm. te li gën a graaw ci gaal gi da gis ñoo ay étudiants lañ am avenir. wàcc fi jàng bi dugg ci gaal gi. nga gis ñoo xamante ay fonctionnaires lañ dugg wàcc fi seen liggéey dugg ci gaal gi. ci da nga ko complexe. c'est complexe léegi nag dëkk bu demee ba nga xamante ni parce que gis nga li ñuy ut Europe est-ce que xam nga lan la. Mm. assurance. xam assurance mooy lan. Mm. am lekk am fu ñu dëkk bu ñu feebaree faju mm-hmm. loolu ah. lekk am dund bu doy. Mm-hmm. am fu ba pare bu ñu feebaree faju mm-hmm. loolu rek la ñuy ut Europe. mais loolu la leen européens yi di offrir. wallaay mais en essence la dañuy liggéey. léegi nag liggéey boobu ñuy def foofu ba mën a am loolu mais fii mën nañ ko fi créer. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi état bi nag créer liggéey yooyu. te foofu la la agriculture bi la. Mm-hmm. ak industrie. agriculture bi ak industrie. l'industrie de l'artisanat l'industrie de l'artisanat l'industrie alimentaire. muy mbay bi. l'industrie euh, produits halieutiques yi <laughs> muy napp bi ah sàmm bi l'industrie d'élevage mm-hmm. hmm? mais yooyu lañu war a développer mais Sénégal deful benn politique pour développer yooyu mm-hmm. léegi nag léegi ñi daan bay ñi daan napp ñi daan sàmm léegi yooyu yëpp bu doxatul mm-hmm. lenn la ñuy def mooy bàmbeepp ñëw dakaar moo tax Dakar ambulant yi bari comprendre nga léegi ambulant yi ñoom bu ñu ñëwee Dakar lenn mooy seen objectif nañ fi lijjanti weccit bu ñu dajale mën ci fay benn quatre cent quatre cent mille wala cinq cent mille dugg ci gaal yi dem mm. wala ñu jaar Libye wala ñu jaar Maroc mm. te léegi xam nga Nicaragua bi ubbi wootoon mm. mooy bi bu jë ubbeeku mais comment tu peux de Nicaragua bi nekk cinq million yow ngay fay cinq million di def immigration clandestine cinq millions mënoo ci liggéey Sénégal mm-hmm. doona waar hmm? cinq millions mm-hmm. yow gisoo ni war nga mën a toog Sénégal investir mm-hmm. loolu c'est grave te suñu régime bi passé demoon nañ ba ñoom transformer Sénégal en prison ñoom boo nekkee Europe di leen saaga sax dañuy fexe ba ñu indi la Sénégal rek wàcc la fi. Eh, prison <laughs> yàlla boo wàcc kolobaat bala suñu koñ aba ah, kii nu mu tuddati euh, euh, théâtre espagnol boobu waa ji gént ñu koy delloo si Sénégal muy jooy ci biir gént gi ba yeewu alhamdulilah gént ñu lay delloo sa dëkk ngay jooy ba yeewu de musiba la wallaay day na lañ ko def Assane Diouf dañ ko jëlee état wommat wommat ko ba fii indi ko Sénégal bàyyi ko fi jom pour jom Sénégal dañ la indiwaar rek eh, nu mu tuddati eh, Californie nax nañ ko ba indi ko Sénégal billaay mu jooy ba dellu mu jooy ba dellu. <laughs> sax mujj na mujj naa dellu. <laughs> mi ngoog euh, c'est c'est vraiment mais pour. donc euh, politique la laaj ah politique de développement. pour gëmloo xale yi ne war nañ mën a toog tekki. Mhm. non loolu mhm. moom du nekk ci benn fan du nekk ci mhm, ñaari fan. il faut xale yi gis seen bopp ci dëkk bi quoi. et puis il faut que ñu formaliser l' euh, secteur informel bi. c'est xale yi ñu mën a li kenn ko ci nekk gis nga Angleterre. Mm. mën nga ubbi société tey bu doxul tey nga tëj nga tëj ko tey. Hmm. waaw. waaw boo bëggee liggéey da ngay ubbi société liggéey li ngay liggéey fay ci say taxe ba la nga tëjaat ko ci ngoot gi. faj soxla la faj sa da ngaa bëgg liggéey. Hmm. yow yaay créer yow yaay yow yaay yow yaay sa sa bopp emploi quand même. Hmm. dañuy créer ay marché marché yoo xamante ni da ngay ñëw bëgg liggéey danga bëgg place. buñ la jox nga jaay am nga looy jaay da ngaa bëgg jaay. te marché bi pour nga jaay foofu nga am ay kayit. ci saa si lañ lay ubbil kayit yi de. yow yi tax nga war a mën a jaay. ngay def pour am kayit 3 ans. billaay billaay ah. boobu. Mm-hmm. ak ak ak ak euh, vélo kii boobu quoi. Mm-hmm. oui xaw ma ubbil la société bi nga def kii kii jaay li ngay jaay bu ngoon jotee bu bëggee nga continuer boo bëggul nga tëj société bi fay nga say taxe état bi moom taxe yi moo ko ci intérêt. moo ko ci ñor mi ngoog déwén. loolu ko euh, Zeyna. Hmm? Euh, sa gis-gis ci Barça beeg Barça bu ko defee dernier mot bi ñu daal koy.